Morgan. Morgan. Morgan. Lekkete yoo Morgan. Dëgg dëgg Morgan. Fagu. Morgan faju. Fagu. Morgan. Fagu. Morgan Fayo. Morgan Fayo. département. waaw mais affaire bi war nañu ko bàyyi nii quoi muy muy muy dox. doon war dem chef de quartier bi. li ka am na ku nu rax. non loolu moo gën parce que si le faut mën na ñëw wàllu waa koñ bi wàllu kenn ak kenn te bu ñun ñoo ciy sonn ak suñuy njaboot. napp du ko kan fi la daan toog ma wulli ko wulli ba mu tëdd benn place waaye nag fi mu toll nii jël sa garde ma jël sama garde waaye maa lay sa part maa joué nii man. kan rey waaye mën na ko tey gaañ <laughs> naa la de kan gaañ naa la. bul si dara. effectivement suñu santé la suñu bakkan la effectivement man moom loolu ànd naa nañ ci mbooloo waxtaan ci ak ñëpp bon day génn koñ bi quoi. bu ñëwee sax moom xam naan. waaw saya saya mbokk lay seet si ah. mais dama ñu. non man waxuma sa yow yow foo jaar. ah foo jaar. waaye man yoon ñëw naa yoon suuf laa jaar yoon suuf laa jaar bàyyi. monsieur to to to to yow saa yi safeeru jàmbal fooy yi mënoo ko bàyyi ba léegi nii ci yow. ah sama gars yi nu mu demee nii li xew nekk ñaan ma de nu mu demee nii. non yow fi réew mi toll nii nii nii non lan nga fi def. déggoo ñu ni reste chez toi. mais yéen ma ñëw namoon leen sama xel nag ci yéen nam ma caayeen jotaay bi waxtaan bi bala nga ñëw ngeen may ngeen may teeloo ci Restez chez vous. Chez vous. Eh, taxawal eh, stop dama ne nga taxaw yow xanaa yow waa hôpital la moo tax teewuñu la yow papa yow bàyyi sa ma chérie. eh séeri amatul ci kër gi laa wax jamonoy feebar ngay wax ay waxi séeri. mais papa feebar naa dem naa faj ñëw naa wér naa tamit. ah eh mon amour. eh waaye baal amour gi baal amour gi yow mën ngaa feebar ñu lay faj. bay la nga ñew xam na ne boo ñëwee di nga walu wa kër gi nga ay moo rek ma amour. mais wér papa yow tamit. eh ki na ngay. ak ak ak kay mari ana euh, euh, fa fa fa bi kay bima bi la lajon ñu ci biir jox ma yëpp. dinaa fagaru ak yow ba nga xamne fagaru na taajal bi kay garde distance nak na ngay garder garder distance bi yéeg yéeg ca ca kaw garder distance bi. ma chérie toi aussi. eh bàyyi chérie gi xoolal bool bi sa bool dan lay ber man dama lay ber dama lay ber de bool bi sa bool la garder distance de garder distance lii yaa ciy sangu garder distance sa kudoo ngi sa kaasa ngi. na café heure bu la neex waaye nag bu ko bokk kenn garde distance soo bi si ngay sangu len nag wàllum duus mi nag si laa jëm ak wàllum duus mi balaa ngay sangu na nga bàyyi boo kër gi yëpp sangu ba pare nga soog a sangu dama ne da ngaa feebaroon euh, wér ngaa wéroo yooyu yëpp suñu yoon nekku ci. donc xoolal Demba Demba bul avancé. Demba bul te plaît. eh Demis naka ma gën. waay naa yas lépp jàmm. kañ presque à 15 francs yéen yéen yéen yéen Mass. waa ci naka. Malick yéen ay nit ngeen yéen. mais bu dul ay ay lan la lu yéen li ngeen wax nag fan ngeen ko jëlee ak naka ngeen mën a xalaatee. non loolu moo nekk instant bi réew mi dañoo feebar. ku ne nga a toog sa coin la la fi wut. waa léegi ku tukki amuloo droit ñibbi sa biir gaale. mais fu mu jógee fa la feebar bi ëppale. olof Ndiaye moo ku sa bopp toj sa kaan ngay làmb ñun ñëpp ku nekk boo amee problème sa kër ngay dem. du dëgg. donc chacun chez soi. na mënoon a toog foofu. waaw mën naa ngi nii. waaw aw ma passeport. sama carte d'identité génnagul. waaw te mën na ma wàllu feebar feebar bi ñoom ah. moo leen wax ni. Uh-huh. képp ku ñëw rek dafa feebar. ankay ankay ankay képp ku ñëw dafa feebar. ndax yow ñun ñu ngi déglu rajo. non tu vois di xool di saan tamit tali non déglu ma rek. ndax boo xoolee boobaa ak léegi feebar bi li li muy li rey ñoom seen réew yooyu reyu ko fii. li li muy dal seen seen seen dëkk yooyu noonu maam dalu ko fii kon kay mun ñu nangu ñoom ñu bëgg jógee foofu bëgg ñëw bëgg ñu gën a yokkal ñu suñu ay cas. très bien bi beneen bi mooy que ni ba mu ñëwee dafa waroon dem wane wu du xool ko parce que mën na lor tam waa këram. mais dama leen ne ñëw naa 15 jours avant. ba dem def test ñu ne ma togoo sa kër ma toog sama kër génn moo ba dem sama résultat génn lépp lépp lépp est négatif moo tax am fi di génn ñëw nuyu si leen. démb euh, gis nga gars yi xam naa seen esprit. xam aussi esprit waa koñ bi xamalal la xoolal. pour nga dimbali leen ñoom ñëpp dimbali ñu dimbali sa njaboot xoolal garaawul gérer sa kër ceeneen. ma a comprendre feebar la neex xoolal sama mosoon ñëw. Hmm. non jotaay fii dara du manqué. na dem distance ak ñëpp rek. jëlal matukaay. aar sa bopp aar ñi xam nga aar sa njaboot. colol colol mu ne fekkee indi loolu waaye Serigne moom merci. bëgguma téléphone tubay yére lépp baax na merci. ba feebar bi jeex. ok merci beaucoup merci. non non non yéen yéen yéen amu leen li ngeen di wax de yéen ndaxte ay vrai dof ngeen. ci naka ah, non non kii mooy jàmbal fu mag moom mii moo dof. ah wax dëgg yàlla. yow chaque jour yaa ngi xëy di yegg si tataay. waaw dëgg la. yow tamit noonu. waaw. ay dem yu amul benn ful. ankay ah, seet leen seen bopp. dem leen ci docteur. man maa ngi ci biir man demoo fenn maa ngi ci sama gaal. Sénégal am nañu gan. gan gi daa gën a rëy. Sénégal am nañu gan. gan gi daa gën a rëy. maaleykum salaam. garde distance yéegal yéegal yéegal garde distance bi Abdou. salaamaaleykum waaleykum salaam. yow moo la la moo la indi ci waxtu wi. papa maa ko ku feebaroon ba wër mën na delluwaat ci biir askan dox li fa war jëriñ. Hmm. ci biir askan ñaan ñi nga xamante suñu ay bokk lañ. te nekkoon bitim réew ñibbisi ci réew mi naam waroon nañoo jëkkee kër docteur waaye bu ñu yegsee ci ñun bu leen kenn daw ndaxte loolu mooy li nga xamante ne moom mooy doon njiglaayu ñëpp. wóorul de feebar bi wóorul fawul fo fo fawaanuwul xam nga feebar xanaa xamuloo ne fi mu toll France ak yeneen dëkk yi nga xam ne dañoo bari ndey ay woy tawat léegi ñu ngi jël ñi nga xamante ñu feebaroon ba wér am lu ñuy seen yaram su a yow comme daal nag nga assumé fanaan ak moom sama yoon nekk. Ah, waaye borom këram la nag mu ko bàyyee noonu. ah yow yow yow yow yow yaa bëgg lu rek bu la neexee demal sa néega ngoog sa néega ngoog Abdou jërëjëf waay. jërëjëf Pape jërëjëf Abdou. jërëjëf waay maa ngi tax xamee woon noonu nag. dama ko woon noonu. waaye nag. maa ngi yow dañuy garder ay distance. jërëjëf <laughs> merci Morgan, moo Morgan. moo gën.